man da nga jël tànk yi nga ne nga mën a taxaw ak moom tànk ngeen di góor mu lóonee na xajoo coono bi ndeysaan lii rafet na am na solo ak BMW li leen toggal cortège bi moom la noonu ci kaw ndeysaan ànd ak Amadou Ba lii am na solo rafet na ndeysaan am na solo Modou Lo Amadou Ba en direct Modou Lo Amadou Ba ndeysaan ngi noonu ci kaw tey lii tey baa ngi noonu ndeysaan Modou Lo gaa ngi noonu Modou Lo ca kaw oto ba ànd ak Amadou Ba mbokk Sénégal Diaspora TV ñu jëm seen Amadou Ba ndam mbooloo maa leen di topp ndeysaan kamu Ba tey roi des arènes ak Amadou Ba en direct fii si Parcelles gannaaw maa ngi lay nuyu baara raw garaa bi mbaa yaa ngi ci jàmm waa parcelle yi la de ah, waaye lii lu rafet la aha ah, ndeysaan lii na solo Modou Amadou Ba kooku mooy suñu grand zëm ndeysaan Amadou Ba cinquième président loolu la ñu wax Amadou Ba cinquième président loolu la ñu wax ñëwee ba cortège bi cortège baa ngi noonu ndeysaan lii am na solo cortège ngi noonu lii nice Ba cinquième président la ñu déclaré